teg nañu xeeru njëkk defar tali yu yees ak yeesal yeneen yoo xam ne dañoo yàqu woon boole ci pavage ci yenn mbedd yi nga xam ne moo nekk ci marché ocas bu Touba. ki financé projet bu ni mel di président de la république Macky Sall ginnaaw audience boo xam ni dalal na ci regroupement des opérateurs économiques de Touba ñu sàkk woon ko ci moom euh, bi ñu président accordé la audience bi au palais euh, dañ ko joxoon benn paquet mu jël ci yenn yoo xam ne dafa jox ay instructions euh, fermes et rapide loolu tamit vraiment ñu koy sant ci euh, ci activité bi ak ci célérité boobu noonu daal di woo ces services ku mel ne euh, donc euh, DG Ageroute jox ay instruction ne ko automatiquement Touba loolu ñu fay wax na daal di commencé moo tax boobaag léegi ça fait même pas 20 jours. on est ñu ngi nii tey ci tegu xeer wi. waaye ñoo jox na ko Serigne Mountakha waaye jox na ko opérateur defar bi tali yu yees lay doon ànd ak pavage ak assainissement. liggéey bi mooy defaraat yoon yi tali yi nekk biir marché Ocass tali yi am na ci yoo xam ne yoon yoo xam ne amul tali dañ fay def tali yu bees am na yu am tali dañ koy defaraat loolu nag moo ñu fi indi woon fekk nañ fi aussi benn réseau assainissement boo xam ne danañ ko defar. bu jaree ñu yokk ko danañ ko yokk xam naan danañ ko yokk ndax boo defee tali rek indi nga imperméabilisation donc di nga yokk di nga yokk assainissement ci boobu la ñuy sukkandiku aussi pour yokk assainissement bi soobee defar ak yeesal yoon yi nga xam ne ñoo nekk ci marché Ocass bu Touba day tàbbi ci projet global boo xam ni moom la état bi soobu ci yombal dem beeg dikk bi ak gox yu bari ci biir dëkk bi tubaa nga xam ne daañu fa amal ay tali. liggéey bi ñuy def nag ci marché Ocass bu Touba ñu ngi ko xayma ci un milliard bu teg ci suñuy koppar. Euh, projet global la nag li ma mën a wax mooy projet bu global la boo xam ne nii <coughs> boo xoolee yemul rek ci ci defaraat marché Ocass dafa toll ci defaraat yooru Daaru Karim yoonu Tindóori damay lim nii rek léew ma yëpp yoonu Baay Kër ay yoonu Baay Faal yi fële boo jógee côté Janatul Mawa ak yoon yëpp ci la bokk ak contournement Mbacké jógee autoroute génn génn dugg biir biir Mbacké yoonu guy mbind yooyu yëpp ci la bokk mais fii ni ñu nekk nii war eh, yoonu yi ñu war a defar fii ci biir biir eh, biir marché bi mën na yegg un milliard ba un milliard yu topp te liñ ci njëkk a def mooy deux kilomètres yoo xam ne ñu ne commerçant yi identifié pour tàmbali ko waaw mais du yem foofu lépp lu jëm ci wàllum financement bi jàppandi na ba liggéey bi daañu ko door ci fan yi te daañu ko liggéey daanaka ci ñaari weer. ndax financement la boo xam ne am nañ ko ba pare. Mm-hmm. parce que fan yi yëpp yéen a ngi dégg président Macky Sall di wax ci discours am yeeg yëpp naan programme spécial de désenclavement ne vingt cinq mille kilomètres yu war a defaraat financement da ko am ba pare da ko am ba pare yenn yi projet yi mun na am yenn jafe-jafe. financement ndax budget état caisse unique la priorité yeeg yooyu mais bii financement bi c'est à part am nañ ko ba pare. bu dee biir marché occas bi am naa yaakaar ne weer ak weer lu topp maximum ñaari weer mën nañ ko mun a yeggal. soobee yàlla. mboolem commercant yi nga xam ne ñoo nekkee ci marché Ocass bu Touba ñaax nañ leen ci ñi nga xam ne xaw nañoo laal lenn ci mbedd mi ngir yombal ñi nga xam ne ñooy def seenub liggéey ba du am benn gàllankoor. kon nañu muñ te képp koo xam si ni da nga occupé voie publique bi mbedd mi vraiment nga yëkkati la nga fa teg bañ liggéey ba pare. ba bu ko defee ñu xoolaat buñ paree itam bëggatuñ di daan am am muy occuper voie publique bi de manière anarchique te vraiment euh, loolu li muy indi rek mooy tax dëkk bi ni ñu dëgg-dëgg organisation am fi du fi am te loolu ñun ñoo war a commencer di ko def sans pour autant de l'ordre di di di di ko di euh, di ko kii wala autorité bi. Serigne Ahmadou Badawi Mbacke moom Cheikh Mouhamad Fadal moo fa teewaloon xalif général des Mourides Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacke moom Serigne Bassirou ànd ak Serigne Cheikh Bara Laat mi nga xam ni. moo yëkkati kàddu ci seen tur rafetlu jëfu président de la république gi di ko xamal ne liggéey bi mu def ndimbal la ci moom te it marché bi yeyoo na ko lool ndax marché international la. président bi nga xam ne tey moo yilif Sénégal yépp te itam fu fi dara nekk bu ko jàmbur defee moom la war bu ko defee moom ci boppam itam moom la war mu nangul leen ko nangul boobu mu leen ko nangul nag président ci boppam na xam ni ndimbal la ci moom. ndax foo xam ne sëñ Fallou fa tàmbalee sëñ Abdou Lahad yóbbu ko fi mu yegg ku fi jaar te nekkal fi Serigne Touba bàyyi nga xel barab bi gestu ko ko ngir màggal sa kilifa yi fi nekkoon te ñooñu lañ waxoon waxtu wu ne day jëm kanam marché bii du ab marché ay Louga gi ay national ak nangam fii marché international parce que boo fi duggee di nga fi gis waa Guinée di nga fi gis waa Nigéria di nga fi gis waa Mauritanie di nga fi gis waa Mali di fi gis waa Gambie di fi gis ñeneen ak ñeneen kon nag marché la boo nga xam ne amul benn marché boo xam ne gën na koo rek Sénégal amul lu fi nit di def itam ba mu mel nii dañoo faral waa Touba ñu tax tax ñu di ko def déedéet buñ demee rek démographiquement majorité bi nekk ci marché Ocass bi ak popularité bi nga xam ne moo fi nekk lu fi président def dafa war nekkul loo xam ne tey ay farlanteel ak ay farlaqoog naa ngam déedéet fii luñ fi def dafa war te xult moom moom mi jàng xam na li may wax démographiquement lu lu nit def ci Touba gi dafa war waaye lu nit defati ci marché ogas bi itam rawatina dafa war ndax Touba gépp buñ àndandoo woon bu àdduna sépp àndandoo woon togo ci Touba te amuñu marché bu mel nii itam coono dong day am kon nag rawatina ñoom ñii nga xam ne tey xam nañ nan la marché bi toll xam na lan lan la sëriñ bi toll xam na lan la sëriñ bi yanu ñu wëlbatiku aw sëriñ bi ci foofu sëriñ bi mënoon na koo bañ a nangu ñoom mënoon nañ koo bañ a xalaat président mënoon naa bañ maye lii waaye yàlla dimbali ñu ba ñett yooyu yëpp daj. liggéeyub tali yi ak pavage bi ci biir marché Ocass bu Touba ñu ngi ko dénk entreprise bi nga xam ne moo di Ananchine waa AGEROUTE di leeral ne am na yeneen tali yoo xam ne ñu ngi leen di yeesalaat ci dëkk bi nga xam ne moo di Touba te loolee dina noppi balaay màggal gu mag yi